Rasiat euh, euh, délégation bu mag boo xam ne Ousmane Diakhaté secrétaire général bu Rasiat mu ngi nii sëñ Bara Mbacké euh, président Rasiat ak délégation bu mag xam naa Ousmane dina ci dellu siwaat tey nag ñu ñëw di wax ne que ñu ngi rafetlu bu baax déclaration yi nga xam ne ñu ngi dégg fan yi président Macky Sall di ko def ci secteuru gerte gi muy appel yi nga xam ne def na ko ci tournée économique bu Kaolack defaat na ko démb moo ci mujj ci conseil des ministres wax ne mi ngi woola le ministre du commerce ministre euh, de du finance ak ministre de l' ngir ñu jàppale industriel yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi muy huilier yi ba nga xam ne ren campagne arachidière bi ñuy séentu muy campagne bu mucc ayib bu gerte gi ñoree daal ñu ko mën a natt réew mi euh, euh, def ko dëwlin raffiné ko jaay ko euh, sénégalais yi loolu nag ñu ci am mbégte bu baax di ci am yaakaar euh, di tàmbalee gis ne que président promesse yi nga xam ne diggé woon na ko bi muy def campagne 2019 euh, promesse yooyu mi ñu ngi commencé di gis résultat yi ndax xam nañu ne réew mi doomi réew mi dañu soxla liggéey te li mën a créer ay emploi ci réew mooy industrie yu dox te Sénégal amuñu lu dul gerte donc ñuy profité ci occasion bi di lancé appel ministère yi nga xam ne ñoom ñoom la euh, euh, ñoo ñoo bot yi nga xam ne liggéey boobu ci ñoom la ñoom la concerné ñu déglu appelu président Macky Sall boobu. parce que ren li nar a ñor ci gerte ci réew mi bu fekkente ne doole lu ñu huiliers yi ngir ñu liggéey ah yaakaar naa ne suñu mbokk baykat yi danañ am jafe-jafe pour que écouler gerte googu. Ah, rawatina nag fii nga xam ne mooy Touba Touba ku nekk xam na ne principale activité bi duñ dañ di ko wax mooy gerte te ndaw yi nekk Touba dañoo war a liggéey. Euh, kon vraiment ñi ngi euh, sant yàlla euh, di ñaan ci barke màggalu Touba gi suñ borom dimbali ñu ba ñu mën a liggéey ren ndax daaw ku nekk xam na ne liggéeyuñu woon usines yi daanaka liggéeyuñ mun nañu wax ne suñu chiffre d'affaires 10 pour cent sax liggéeyuñ ko ci ndax dañu exporté woon gerte gi te exportation boobu nag du du du du jàppale euh, du jàppale euh, secteur euh, industriel yu réew mi du jàppale itam doomi réew mi parce que matière première comme ni ñu koy mas di waxee kenn waru ko exporté dañ ko war a bàyyi ci réew mi